doxin ak doxalinu Alioune Badara Cissé nee li ñu koy dégg fan yi yëpp mu di ko wax moom Alioune Badara Cissé jëmale ko ci président Macky Sall ak nguuram wax joojee du waxi nit ku gore du waxi nit ku am coloré te wax ja dafa ñaw ci diggante Alioune Badara Cissé ak Macky Sall ndax Macky Sall jiwu ko loolee Abdou Mbow ne ABC bu dee dafa bëgg politique na ko ñeme na taxaw ñëpp xam ne day politique moo gën li mu bëgg a nekkee ci réew mi saa yu ubbee gémmiñam wax loo xam ne du lu ñuy xaar ci médiateur de la République Abdou Mbow wax lu bari ci Alioune Badara Cissé nuppi ca daal ci Cheikh dem sax ba jàpp ne kii di Cheikh Bamba Dièye dafa war a taxaw jéggalu ci kanamu askan wi yëpp maanaam défi exécutif public ci kaddu yi mu teg ci deru magistrat yi réew mi opposition bi ci réew mi Abdou Mbow ne tojuñu fenn dañoo bëgg a tuur lëndëm askanu Sénégal bëgg leen a manipuler waaye dabuñu Macky la ci wëq te bu dee ñoom ak ñoom rek 2019 Macky Sall bu ko neexee mu nelaw ba yandoor fajar la yeewu démb moom président Macky Sall ngir demoon teewe ji ndajem prix concours général 2018 Sud Quotidien nañu ndaje ma démb la woon ñoo ngi ko doon defee ca Grand Théâtre république bi yëpp fa daje woon ngir sargal ak neexal élèves yi gën a takkee ci réew mi soleil national nañu élève bi gën a taqe ci réew mi jaari sow la tuddo moom la tànn def ko meilleur élève concours général 2018 moom jaari sow mi ngi taxaw dend ak président Macky Sall ci xët mu njëkk national ak professeur Iba Der Thiam mi ñu bàyyile woon xewu démb mi jaari sow Malicounda ga ci mbuur fa la dëkk ma ngay jàngee ci lycée d'excellence scientifique bu Njaarim classe première S1 la doon def moom jaari sow mi jiitu ci élèves yi réew mi ak Macky Sall mi jiite réew mi ñoom ñaar ñoo bokk nekkandoo ci xët mu njëkku la Sénégal yi journal bi teg ci indil ñu lenn ci kàddu yu njiit réew mi Macky Sall yëkkati ca ndajam démb ma nee na duñu nangu ay nit di jëfandikoo internet bi di ci làqatu di saagawaate soleil national nañu bëgg na it révolution numérique bi ñuy wax ci réew mi ñu dugal ci l'école yi bu baax baax a baax jaari sow mi ñu tànn def ko meilleur élève concours général bi journalisé ko nee na ñu tànn gi bari na coow ndax am na ñu ci àndul bokk ci ñooñee waa lycée privé Amadou Sow Ndiaye te Serigne Mbaye Thiam ministre éducation nationale la ci joxar bi baaraamub tuuma Moustapha Diouf bokk ci kilifa yu boobi le lycée ni ñu ci les échos lii mooy a rëy gi état bu Sénégal ma sa def te Serigne Mbaye Thiam moo ko def li ñu bëggoon am nañu ko li ñu bu Diourbel gagné ko ñun xam nañu lépp li kenn xamul palaas yi ci réew mi ñoo ngi rey ndawi réew mi te ba léegi dégg guñu kilifay réew mi wax ci ka ca wax di Aly Ngouille njaay la mu ca wax daanaka bañoon koo waxatane ne moom Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur boo déggee la mu ca wax keroog da ngay xam ne xamul liggéey gi réer daanaka waxam jëpp mi ngi ko tegoon ci dina ñu laajte te moom Aly Ngouille Ndiaye dafa war a xam ne en tant que ministre intérieur waru garam ci réew mi du rekk xinte wo organiser élection waaye fukki millions yi doomi aadama ak juróom yi ci réew mi dafa war di waggar ci seenu kaaraange journal bi nañu te nag Aly Ngouille Ndiaye la mu wax waxadi waxadi moo ko tane foog premier ministre bu Sénégal di Mahammed Boun Abdallah Dionne ni mbir yaa ngi xew jëye yi di am nit ñi di faatu fukki doomi aadama ak juróom lap ci géeju géejawaay gi ba faatu ci lu matul benn semaine te ba léegi kenn déggu ci Boun Abdallah Dionne waaw turandoo karo bu baax nu muy mel soo jëndee karo yu baax da ngay posé premier ba dernier karo doo si gis défaut benn karo du fell bay toj gondole moom <laughs> waxaale wu ma ko couleur yëpp ay nuro dimension yi méngoo te saa suñ koy nettoyé dafay gaaw a set te du naan ndox tawak naaj mënul ci moom dara te produit d'entretien du ko soppi waa li nga fi wax yëpp fan laa ko mën a amee ci fen fenn rek